mu woote woote boobu ci biir woote am na ñaari yu ñu cité woon te waxtu wala day wax ne ñaari yi ma lay wax loo de ko wax muy kër Serigne Touba gépp a yam ci man waaye kër Sëñ Fallu ak kër Sëñ Abdou Xaadir nag suñ borom daa dogal yàlla xaasal ma ca lu ma dugg bu ma gëstoo gis leen ca lu ñuy dugg it ñoom boole ma ca loolu moo tax kër Sëñ Abdou Xaadir ngi nii kër Sëñ Fallu ngi nii Serigne Cheikh Oumy. keroog ba mu ànd moom ci liggéey bi nee na ko yàlla day boole ay nit te yàlla ma booleeg yow ba noppi boole maag sa baay bëgg ma ko tam taxawuma ci wet gu ne fépp foo woote boo gëstoo da ma ca moo tax mi ngi nii den nag moom ànd nag ak ñi nga xam ne mooy njabootu Cheikh Abdou Khadir sëriñ si léegi nii den nag moom sëriñ Mahmoudan sëriñ bee ko wax démb na ko aw ma génn kër sëñ Abdou benn baat képp la sëriñ Abdou Lahad la ñuy liggéeyal maag ñoo yem ci sëriñ Sidi buñ noppee na nga ñëw yooyu mbooloo mi mu ne ko bu dee sept heures dinaa ñëw bu dee huit heures dinaa ñëw ngi nii toog waaye njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam ne nag yàlla da leen a boole woon ak Cheikh Abdou Lahad seen way jur yu baax yi joxoon leen si Abdou Lahad na leen seen way jur yi joxe woon sëriñ Tuubaa nee na buntu kër yi seex yooyu des leen a munta lim benn par benn waaye fu ngeen seen xam leen ne jëwriñu sëriñ Abdoul Ahad rek moo fa ne ànd ak mbooloom te lii wane ne sëriñ Abdoul Ahad xajut ci dara te ma waxaloon boppam ne ku liggéeyal sëriñ Tuubaa murit yéen a war a fay waaye kenn natt lu murit yëpp ameel nañ ak pay Seex Abdoul waaye war nañ ko jii bunt kër yooyu ñoom ñëpp ñëw nañ dañuy bañ a guddal ndax kilifa yi ñu teew ci jotaay bi waaye sëriñ bi daa wax ne nan jox sëriñ Seexuna Gay Badar na ko waajuram wa daan defee mu yëkkati ci ay kàddu ngir ñaaxaat murid yi bu noppee ñu jox Serigne Mahmoudan mi nga xamante ne bii moom la sëriñ bi woo na ko kaay yewee ma mbooloo mi waaye sëriñ am sa nee daan kàddu sant bopp na koo xam ne xam naa ne dana jafe ci sëriñ daal muy sant sëriñ Sidi waaye moom nag sant sëriñ Sidi rek lay def waaye donga yi nag ak seex si àndoon ñun sëriñ Mahmadoon la jox kàddoon ngir ñu sant mu sant leen ko kon ñu déglu loolu lépp nag ñu ngi ko def ci ndigalu suñ seexu bi ndax sëriñ am sa daf ne aw ma fi baat ni mu doone jëwriñu tool yi danaa leen doone sama yore sama kàddu ndax man ci biir kàddoom laa ne ba muy yëkkati it nee na neen sëñ Abdou Lakaram bëggoon mu dalal ñu sëñ Abdou na ko nee ko jëmm jee waaye jëmm jàng ci biir jëmmi sëñ Amsatu amut baax fa mu joxañ rek fa laa ne loolu ñëpp nangul nañ ko ko. waaw waaw ngir li ma doon bañ ci lim rek. waaye sëriñ maam Cheikh moom Cheikh Mahmadul Fadal Mbakke moog sëriñ Abibu démb ñëw nañ tey ñëwaat nañ ndax ku xam sëñ Amsatu xam leen fu mu gestu gis leen kon li ma wax rek na buntu kër yi sëñ Fall yi moom benn buntu kër desut buntu kër yi Cheikh benn buntu kër desut loolu sëriñ da ko waxoon ci appel ba te ñuy wax ne ragal péete day wàññi wërsëg waaw waaye moom wax na ne daal kër sëñ Abdou Khadir ak kër sëñ Fall moom lu ko fa dal rek neex na ko. ndax fu mu gestu gis leen. ñun ay dongo lañ bëgg a doon. te bëgg nañoo wér. te bëgg nañoo wér. bëgg nañ lu ne ci poos yi tamit nag. bëgg na nit lu ne ci biir poos yi. boobu sëñ bi soxlaa. boobu sëñ bi soxlaa. ñu mën a jóg ñu mën a jóg. jëf ko ci jëf ko ci. sëñ am sa. sëñ am sa. ñu ngi nii ñoo ngi nii. aywa bisimilah aywa bisimilah. bari amin amin amin ñu bari ñoo ngi